nañu yéene bi ñuy yéene suñu bopp nañ koy yéene doomu aadama yi nañu bàyyi noraange gi nañu bàyyi lépp luñ gis lu ñaaw ñu teg ko ci doomu aadama gis nga àdduna bi day jeex te nag lu fi waay def ko layal suñu borom ah yow yow mi toog di seetaan vidéo bi yaa toog naan kii li ñuy wax dëgg la mais jubóo ci li li may wax chaque jour koy def guddi bëccëg suba ngoon naka ngay jëlee doomu jàmm dem ci sëriñ ne ko yàqal na ko sëriñ bi ne la ah, ree dekk na la ah loolu fanweeri junni lañ koy yàqee yow yow yow nit daa jar fanweeri junni ah nit dafa jar fanweeri junni dama ne sëriñ yi yéen laay waxal bàyyi leen seen li ngeen nekkee gëm leen yàlla ah lu leen neex rek ngeen def lu leen neex ngeen wax dama ne delloo seen delloo leen seen xel ci yàlla te ngeen bëgg seen bopp ku bëgg boppam nag di nga bëgg yàlla waaye jëw wax ñu dëgg jël yëfi jàmm sàcc fen ah defe na loolu mooy doxal àdduna yéen ngi nax seen bopp de yéen ngi nax seen bopp te nit nag loo ko bañ bañ bañ bañ bañ mënoo koo xañ li ko yàlla di jox waaye loo ko bëgg bëgg bëgg bëgg mënoo koo jox lu ko yàlla jox kon nag suñuy pexe yàlla jëkk nañ ci bi yàgg dañ ko rafetal àdduna ba fi nekkee da rafetal àdduna dafa yàgg daa jar la lu mu jar àdduna lu mu jar ba ngay def yenn yi